salaamaaleykum mbokki internet yi bàyyi xel 24 actu yi bëgg nañ leen bu baax a baax ziar leen di leen baalu àq tamit di leen baal àq ci at mu bees mi ñu dugg si at mi nag ñu doode ko ak weeru muharram te ku ne xam na ne weeru muharram di weeru tam xarit ku ne tam xarit nag daal di wax ne at mu bees la ñuy baalante àq bu baax a baax tey jii nag ñu ñëwal leen fii ci marché ocas ngir defal leen benn reportage ci ñi nga xam ne dañuy jaay cere ak lépp loo xam ne lu jëm ci cere la ndax ku ne tam xarit ne cere ñu ñëwoon nag gis fi sama benn maam boo xam ne mu ngi jaay cere ñu bëgg a waxtaan ak moom. yaay booy ñu gis la ngi ci marché bi di jaay cere. te ku ne tam xarit ne cere macha allah euh, ñu lay laaj ndax euh, njaay mi mi ngi dox. dox na bu baax. macha allah sama yaay nee na njaay mi dox na bu baax léegi nag li lay laaj mooy euh, njaay mi ci tamxarit gi gis nañ ne tamxarit gu ren gi wuute na ak yi nga xam ne si nii ñoo ñoo jiitu woon yow naka nga gisee euh, différence boobu am maanaam wuute bi am ndax euh, ren moo gën a dox yi weesu wala yi weesu moo gën a dox. na lool ñun noo ngi sant yàlla boroom borom dëkk bi rek. Mm-hmm. waaw. macha allah sama yaay nee na njaayam cere mi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax euh, kon nag dañuy continuer rek ànd ak yéen xam nañ ne ku ne cere lu ku nekk rek daal di cee wut leneen loo ca def ñu daal di ànd ak yéen dugg ci biir marché bi. alhamdulillahi alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan bi furudin wa sunan chakaru joxaali annahu qad saaxani waaw ñu gisaat suñu beneen maam boo xam ne mi fii di cere ñu bëgg a waxtaan moom maam tur bi naka la Fatou Diba Fatou Diba waaye maam ñu lay laaj ndax njaayum cere mi ak feetu tam xarit bi ndax xam nañ ne ku ne tam xarit ne cere euh, ñuy laaj ba xam njaay mi mi ngi dox wala de njaay mi moom mi ngi dox ndax dëgg yàlla mi ngi dox ñu ngi sant Serigne Touba yàlla na njabootam gi yàgg ci sunu kanam sant nañ ko gërëm nañ ko waaw sama yaay nee na ci jaay te luñ jaay rek barke bi moom ñëw na ci ñun luñ jaay rek mu jar te day barke waaw kon sama yaay nee na fii mooy occas occas loo fi jaay mu jar dana barkeel dégg ñoo ngi koy sant sëriñ Touba ak njabootam yàlla nañ yàgg ci suñu kanam sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ak njaboot yëpp nag man Cheikh Basirou Mbacké mooy suñu sëriñ yàlla na ko fi yàlla yàggal ak doomi bayam ak ñëpp ci daraje Xaadim Rasuul waaw sama maam nee na njaay mi macha allah mi ngi dox euh, maam booy li ma lay laajaat mooy euh, gis nañ ne tam xaritu ren bi dafa tombeek mbas mi dugg fi te xam nga ne mbas mi lépp la lépp la laal ñuy laaj ba xam njaayum ren mi ak njaay yi nga xam ne euh, daana jiitu tam xarit yi jiitu naka la demee daal maanaam diggante bi ñaari ñaari tam xarit yi naka ngeen ko gisee ci njaay mi. wax dëgg yàlla moom moom yooyaa daa gën dox moom ren nag moom eggaguñ ci biir tam xarit ba xam waaye fii nu toll de moom wax dëgg booba la gënoon a dox waaw waaw. waaw kay jërëjëf maam yàlla na cere ji jar ak jàmm ak salaam macha allah ndax suñu mbokki njufeen yi man cee xéwlu bu baax a baax. mufawwidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka summa ilayka la ilaha siwaka qad sirtu lamma lam ajid sarwaka وجدني اليوم بخير منني وقدني إلى اقتفاء السنن ku nekk boo nee cere daal di xalaat ne cere moom ñeex a koy togg te ñeex nag bari na am na ñuy togg ñeexu yàpp baase am na ñuy togg ñeexu yàpp boo xam ne ñeexu dawlin lay doon tey nag ma ñëw fii nga xam ne dañuy wal gerte gu ñor macha allah ma fekk fi sama yaay booy yaay nuyu naa la. asalaamaaleykum sama doom maa ngi lay tur bi naka la. ñu ngi Ndeye Niang. Ndeye Niang yaay Ndeye euh, ñu gis ne macha allah yaa ngi góorgóorlu yaa ngi ci machine bi di wal ma lay laaj euh, tamxarit gi naka ngeen koy waaja yéen ñi nga xam ne yéenay wal fii euh, gerte di préparé ñeex yi. waaw ñu ngi defar gerte bu rafet bu neex teg-teg bu neex bu am maanaa bu set wécc bu sell la ñuy defar ñun waa Touba. waaw di ci gis suñ bopp rek nag di góorgóorlu sant suñ Muntaxa bu wér ñaan ñu yàgg fi lool te wér nag bàgg waaw yaay booy amin ci ñaan yi léegi ñu gis ne euh, euh, tam xaritu ren gi dafa wuute yi fi daan jaar ndax gis nañ mbas mi fi mi fi agsi léegi ñuy laaj ba xam euh, tam xaritu ren gi ngeen gën a gis seen bopp wala yi weesu tamit macha allah ndax am na différence bu ba bare bëri ah différence bi am soo ba léegi ñu ngi sant yàlla sant yàlla ndax yàlla moom du mos a wàcceb jaam waaw ñu ngi sant bu wér a sant sëñ bi ah alhamdulilah يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيد كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي من كرم اليوم أن أكون waaw ba tey ñi ngi fii ci marché ocas ngir toppal leen rek li ngeen xam ne mooy tam xarit gi cere yeek wàccaay yi ciy dem ak ndugg mi ciy dem lépp tey nag ñu ñëwoon ci ñi nga xam ne dañuy jaay ndugg ma fekk fi sëñ bu baax bi sëñ bi tur bi naka la kii da Atoumane lañ koy wax sëñ Atoumane nañ la bu baax a baax ñu lay laaj euh, ndugg mi naka la demee ci li nga xam ne mooy feetu tam xarit bi ak cere yi nga xam ne ñu ngi koy waajal waaw ndugg mi de moom fi mu toll ni moom ñu ngi jigéen ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk bagage yi moom seer na macha allah seer na lool fi mu toll nii lu si nekk moom lam daan jar essence mu ngi jar ñaaram day dëgg dong la bagage seer na. waaw nee na bagage yi seer na euh, ñuy laaj tey prix yi nga xam ne da ngeen ko daan jaayee bu njëkk ndax bu ngeen ko indee ak client yi du am ay jafe-jafe tuuti. waaw moom moom xam naa ne dina xaw métti lool daal dina métti nag mais par rapport du demee noonu parce que li daan jar 1000 francs tey bu ñu ne la 1500 la xam nga ne dina xaw doy waar lool. par rapport ak li nga xamante ni yaa ngi doon jëndee 600 tey ñëw ñu ne la 1500 wala 2000 dina la xaw a yem lool. mais nag li ko waral affaire bi du si fii parce que ñun bayuñu ko fee doo nga lay jógee ñëw ñu def transport mu ñëw ñu jaay buñ jëndee 200 bu ñëwee jaayee 400 wala ñu jaayee 500 parce que bagage bi moom moo ni demee daal. waaw tey nag ñu gis fii macha allah yomb na nga xam ne sama classe xale yu bari xamuñu ko te ku wax cere wax ñoom supame ñoom yomb ñoom carotte euh, yomb ji ndax clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax par rapport ak yi nga xam ne ñun moom lañ gën a xam ci ay supame ak yooyu ndax cere moom macha allah yomb da koy neexal. waaw ku ne tam xarit de moom na yomb si mag ñi mais nag suñ tool ni moom xam naa ne xale yi jamono heure bi moom duñ ko comprendre. mais xam ne seen yaay moom dina leen expliquer lan moo ci dem bu dee ne ñooy ndugg si mu yomb mais bu fekkente ne nag moom xale yi ñooy ñëw moom te expliquer ñoom dañuy ñëw di laajte lii lu mu doon nga expliquer leen ko wax leen ko conseil leen si quoi pour na xamal ne leen yomb moom li ma leen di wax des fois dama naa leen yomb moom baax na. parce que boo ci amee 300 wala nga am ci 200 dund mën naa la wax 5 ans la wala juróom fukki at ak juróom yoo xam ne nii boo ko lekkee doo dem hôpital du am ci wàll. kon nga xam ne yomb baax na quoi. kon macha allah na tur wa demee noonu la baaxee ba tey tamit euh, ñuy laaj ndax njaay mi njaay ndugg mi ak fi nga xam ne fi la tam xarit gi ñëwee ak jamonoy mbas mi ah, am na différence ak at yi nga xam ne moo weesu maanaam tam yi jiitu woon. waaw moom am na différence bu baax a baax parce que mbas mi moom defe naa dipp mu duggee ak léegi xam ne ñun moom ñu ngi ñaan suñu borom mu gën ñu seen musal dégg dong lañ ci am mais moom am na différence parce que. par rapport daaw ak ren am na différence lool parce que heure bi da daan fekk sax daanaka doo tal def lii ngay def di dugg di jox nit mi ko du am temps boobu noonu kon bu ko defee mbas mi moom am na différence lool heure bi da daan fekk moom dëbal dëbal ji moom jaame jaame bi da lay wër ba macha allah daal instant yi nag moom xaw naa kéegum xam na nag ñu ngi yaakaaragum féeg ci kanam ba waaw ñu ngi yaakaaragum comme xam ne daanaka féeg suba wala ginnaaw suba moom lu ne xañ na ci daal mais demeegul noonu daal. jërë ngeen def mbokki internet 24 actu yi bëgg nañ leen bu baax a baax macha allah jaajëfal leen ci topp gi ngeen ñuy topp gis ngeen lii leen leen indiloon tey jële ko ci biir marché bi ak waajtaayu tam xarit bi gis ngeen jaaykatu cere yeeg jaaykatu légumes yi macha allah jaaykatu ginaar yi ñoom ñëpp wax nañoo ak ñoom ñu fas yéenee nag topp tam xarit gi te bàyyi suñ mbokku njuufeen yeeg suñ mbokku nju eh, ndaween yi ni nga xam ne moom la ñuy waajalee cere yi ak ni ñu lekkee cere yi nañ leen bu baax a baax ci topp gi ak bàyyi xel gi